Euh, le 17 novembre mais pour cent yi ñoom trois mois yi capitalisation bi dafa am par Bougane mhm. Thierno na petit à petit Pape Djibril Fall petit à mhm. petit mhm. Anta petit à mais bi ñu demee nag ba Ousmane Sonko commencé défier ñi ñi nag jàpp yi commissaire Keïta liberté yi injustice yi nangam ak nangam gars jóg Mm-hmm. Bougane jóg nag jàkkaarloog moom. Mm-hmm. après Cheikh Yérim Seck de l' autre côté. Mm-hmm. gars yi commencé ñëw yéeg xeex presse bi. mooy song bi mu song presse bi. ñëw bëgg a tëj presse beeg yooyu. loolu aussi moo révélé nit ñi. ingrédients yooyu yëpp daje. léegi ingrédients yooyu bi mu daje am na surprise Serigne Moustapha Sy bi. Eh, eh, ci gàmmu gi xam nga Serigne Moustapha Sy. ci gàmmu gi. xam nga xaaruñu foo xalaat xaaruñu foo woon loolu te boo xoolee. Mhm. discours mu Moustapha suñu Serigne ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam. te te te te bàyyi ko fi xam nga daf ne. Mhm. Mhm. xaw ma nu may def Basirou Diomaye seetlu woo wax boobu. loolu dafa yaru. parce que mu dane xaw ma nu may def Basirou. waaye dina xam ni ni législatif yi ñu ngi ñëw ñu ngi jàkkaarloo. lii la wax mais loolu foofu loo fa xam xam foofu loo fay déggee. parce que bu ñu yegg si woon tey. bëreet ñu yegg si au pouvoir ni Sonko njëkk a def képp ku xam ne ni am ngay sens. Mhm. sëñ Moustapha xam na ni pur. Mhm. mën na am sens su indi candidat. Mhm. bu mën a jàkkaarloo woon ak moom. joxu ko importance. Barthélemy Dias kale na ko ci ay dossier Mm-hmm. mooy ci loo loi amnistie bi nii boole wuñ ko ci mm-hmm. mooy dañ ne am na benn loi électorale xam nga tey ci élection yi nii apaisement rek le conseil ko ak moom ak moom moom waaw moom li mu nekk candidat ñu ñëwee seen fee lié ah. parce que yàlla dafa juste mm-hmm. xam nga Ousmane mooy nit koo xam day dem du bàyyi xel suñu borom déedéet xel parce que sur l' affaire Adji affaire bi ñëw naturellement la ko Basiru lebaloon ca ca ca joxe parti bi moom mu bañ ko jiite la yàlla delloo delloosiwaat légitimement Basiru ci parrainage bi ñu joxe turam Mm-hmm. ñu dugal ko conseil constitutionnel mu ñew nek candidat mm-hmm. ñu dem ba ba ba mu jaayok ba négocier ak Macky Sall mm-hmm. conseil constitutionnel dëgër bop kon donc Bassirou bi ñuy wax si laa ne Bassirou ko fal buñ né Ousmane ko fal ci laa la loyauté bobu mu amone ak mom sa sa xarit xam nga né du bi livre mu am problème mu xam nga la nga génn taxaw défendre ko ah, tout en sachant que tout en sachant loolu xarit devoir loyauté ak amitié nga dem taxaw saaga magistrat yi songu len xex lépp nga jël ko jox ko ñu tëj la ci sept mois gars yi fàtte la ci kaso bi ci diggante bi Ousmane wàccee na toutes les nombre tànk yu mu am ci moom dëgg la summi ko ba mu des ba mu des kii bi mhm. léegi nag yàlla ñëw def ko président gis nga ci diggante bi pexe bu ne defuñu ko pour ñu tas élection yi waxtaan bu ne defuñu ko mhm. pour ñu tas élection yi conseil constitutionnel lu ne kii nañ ko pour far yàlla ne Basiru lay doon parce la mu leble woon moo ñëw Wad mhm. hamane la, bode yi ki kote lwa yote bo amene Ousmane, bi mwen yekse, mhm. set mwen Objektif bi mwen amon, mwen mhm. yi governman Kobay Lam, set lou, ki pou amon Ambisyon prezidentiyel, vo Dof le elimine Jel nyom chek bambadje, yobo ah, yi direksyon jël ñoom Mary Teuw Niane yóbbu ay ay ay ministre kii jël jël xale yi amoon avenir yëpp nga xam ne seen avenir mën na jóg ñoom soo Soda sànni ay directeur jël jël làq leen fa làq leen biree seen mm. carrière xam nga xam nga noonu la njëkk a def mm-hmm. effacé mm-hmm. léegi nag mu des daj dëpp gi mu ne ñu ne Barthélémy Diaz tôt ou tard dinañu xam naa ne foofu Ousmane jaañ moo bañ mm-hmm. mm. parce que boo xoolee Bart Aïssata Tall Sall dana ñun mënoon nañoo bind mais binduñu mais ministre de la justice côté da doon flagrant trop parce que xam nga faux pas bi mu def ca ca ca grand théâtre bi foofu la yàlla sauvé Ousmane Dia mais xam nga boobu bu ministre bi bindoon ministre de l' intérieur bi aussi tamit bu bu ñu bu ñu xam après conseil conseil dana loolu ministère yi xëy na ñoom bu ñu ko ah, ñoom it xam nga xam nga ñu jël beneen bis topp mooy aussi tamit xam nga dans les normes élections yi un an la waroon dérouler mais bañoon dem politique générale. Mhm. Ousmane moo tax Barth bokk. parce que looloo tax mu anticiper élection yi. parce que bu defoon six mois yeeg affaire yi. lépp lépp lépp yàlla loolu ma ko yàlla. lépp lépp sóoraale wul moo tax ñun ñee. ñu def yàlla gis nga li may wax naan yàlla moo indi Basirou Diomaye ku xool anam bi. Mhm. ku xool ni mu ñëwee yàlla la. Mhm. donc moo tax bi ñu yegsee nii yëpp bi mu yegsee moom lu mu njëkk a def mooy mm-hmm. Bassirou installé nañ ko. Mm-hmm. benn poste rek moo fi nekk boo xam ne day sës Bassirou. Mm-hmm. muy premier ministre foofu la warul woon jël. kon da nga jàpp ne warul woon nekk premier ministre. parce que foofu bi ñu falee Bassirou Diomaye rek. comme ancien président yi gis nga bu ñu tegee président rek dañuy naan xaaral sori dëkk bi. parce que su ma fi toogee. damay gêné damay gêné ki fi nekk. moom bi yàlla dogalee. légitimement naturellement. Bassirou bii yàlla indi ko. te mu nek ki sosoon bokkoon mom si la waroon bàyyi. basiru mu ñew mu daan ne ko kon digënté bi bàyyi ma dem géré ji parti bi ñu dem dans les ruptures profondes indi appel candidature man ma gérer le parti. Mm-hmm. xam nga boowa légitimement bu ñëwé nek tête de liste. ñep da sénégalais yëpp dañuy wax sa place à l'assemblée nationale. xam nga ñass mm-hmm. bi mu accompagner maki mais ñep dem tok amul poste. Mm-hmm. ñep dañ néwon poste bi ñass assemblée bi c'est légitime. parce que personnalité de la moo toppoon ci élection yi deuxième. xam nga ñes après bi ñu bi bi bi Macky amee vingt cinq ñes a si topp. waaw xam nga mook Tanor seen éclatement bi moo tax Macky génn. Mhm. boo boolee ñoom ñaar li ñu am kon Macky du woon génn. Mhm. mais Macky bi mu yegsee ñes dafa xam ne ni légitimement deuxième personnalité de l' état revient à Macky. Mhm. à ñes. mais ñes dafa génn pousse mu nekk genre ministre d' état conseiller am. toog ba assemblée mu def ko tête de liste. mu nekk président assemblée nationale. Ousmane bi ñu yegsee ba fallu. Mhm. ba a installé Diomaye mu prêter serment mhm. foofu la waroon man bi ñuy mhm. c'est là ne est-ce que Ousmane bu dee nii ne xëy poste mu dem nekk directeur cabinet président mais bu dul sax man à défaut sax dama waxoon bu mu jël dara parce que il n'avait pas eu le temps parti mieux yëpp daf ko procès ci ay procès ak ay xeex mu am le temps d'organiser son parti mu est un parti modèle parce que boobaa bu taxawee fii. Mhm. ibbi permanence yi gérer yëpp. Mhm. daal di wan sénégalais yi ni dinañu wane modèle parti anti système. Mhm. rupture dina fi génn livre yi ma tegoon solution bu ko def boobaa les meilleurs sénégalais ñooy entouré Bassirou Diomaye. appel candidature boobu Bassirou dina ko def te dina am les meilleurs sénégalais. diggante Bassirou Diomaye bi tamit ak l' ancien benn problème du am parce réconciliation boobu. ak ak vérité boobu parce guma parce que tey ñoom ñoo dem tëju ak Macky Sall. Mhm. mais loo amnistie bi ça profite à Pastef. Ah, ça profite plus à Pastef. tey ñoom dañ xam bokkul ci seen programme. Mhm. duñ ko ci boole xam nga tey moo waroon doon seen premier thème ci campagne mais lan moo tax ñoom duñ ko tudd duñ ko tas attaqué mhm. wuñ ko sax conseil constitutionnel. parce que ñoom ñoo ci ëppale. li ci nar a lii nar a métti ci ñoom lay jóge léegi loo am amnistie bi bi mu amee. Mhm. looloo nga gis ñoom bi ñu xottee protocole ak Macky Sall. Mhm. parce que moom bi mu yégee nii nii Macky Sall il veut revenir. loolu ko jaxase loolu moo ko jaxase. xam nga Basirou moom jàpp na nii benn mandat rek dafi jaar transition rek. mais moom mi bëgg a ñëw léegi nag mu yàq digganteem ak Macky Sall.

seen relation di daw ba Macky Sall bi muy dem lan motax Macky Sall amone confiance bañ Amadou ñew hmm parce que booy xol mm-hmm. Ousmane Sonko Amadou amok ah, amok ah, Amadou Ba ñoy xarit hmm deug la ñoy xarit parce que Amadou rappelé nako ci conférence de presse bi mm-hmm. néna na fii dafa nam suñu bureau yeeg suñu ataay ak suñu parce que Amadou lañ doon jiiñ ni mm-hmm. ya baña dak Ousmane Sonko ya ko def limu am ya ko nangam nangam mais loolu lañ doon jiiñ Ousmane hmm mais Bassirou a été toujours un radical dëgg la léegi nag bi bi mu ñu yegsee ni Ousmane pour doon kut koo kut président de la république bi puusul effacé wul xam nga tey dafa waroon génn bàyyil mm-hmm. Ousmane bàyyil Diomaye mu déroulé cinq ans yi mm-hmm. léegi nag moom mu dem fee organiser le parti mm-hmm. reprendre l'ancien Yewwi parce que même waa Yewwi loolu lañ jàppoon que Ousmane bu ñëwee dafay rëpp gis nga Ousmane bi mu yegsee rek lépp lu am turu Diomaye président da koo kase xam nga lu tax Diomaye bi da koy déranger looloo tax gis ci élection présidentielle yi mu ñëw ne ku indi ku ñëwul say ci ci Pastef euh, rajaxe jomaay président bi parce que dynamique boobu dafa am lu ci bari loo xam ni ñoom bi ñu tegee jomaay rek am na ñoom jaaruñu ci Ousmane ils sont mm-hmm. partis directement see jomaay mm-hmm. commencé waxtaan. ñoo xam jamono euh, xamuñu Sonko. xamuñu Sonko ñu si bari seen ñu pratiqué nañu Sonko. Mm-hmm. manko pratiqué nañu ko ci yenn kii xam nañ jikkoom xam nañu nu mu sadisme bi. xam mm-hmm. nañu euh, comment il est sincère en amitié en partenaire et en mm-hmm. comme comme nii nii du nekk suñu xarit. non non du ko nekk moom. gisoo damay jël exemple ne leen pas Amadou Tidiane Wane ba mu ne ko tuyee irresponsable. ci benn texte. waroo woon dem si Beauté. lijjantiwu ko mais jour bi pas Amadou Tidiane Wane bindee ni il faut pas ronger l'os OS quoi comme Ousmane. ngoon ngi la dem këram seeti ko. photo moom. xam nga moom laa leen wax ne leen man je am na côté yoo xam ñoo ci nduróo. Mhm. mooy man loolu lay wax gars yi parfois mhm. ma ne leen man un ami c'est un ami. Mhm. mais ki jàkkaarloog man ne bëgguma maa la gën a bañ. c'est comme ça que Ousmane fonctionne gis doo seetlu gars yi koy tëgg tàgg. nii di ko neexal di ko rogo <laughs> jeeru moom musul def texte si ñoom musul wax ci ñoom. gisoo buy jël exemple sax. Mm. buy jël exemple ay fat fadilu la lay wax. waaw parce que xam nga wala wala gisoo déggoo li li la El Malick wax ñun ñaar buñ toogee di seetaan te. waaw ah. chroniqueur yeeg yooyu dañ ne ndeysaan ñii li leen dal mooy système beeg robinet yi ñoo tëj parce que ñoom ñoo yem ay ma ñoo bokk mindset. Mm, mm, c'est-à-dire Samba mais moo lay wan ni dañ yàgg wax ni ni Basirou à l'interne dans les débats man am na ñu nekkoon yeeyu ñu may wax ni tout ce technique tout ce qui est travaux Basirou mooy ñëw. parce que man nekkoon naa ak Ousmane Manko man nekkoon naa ak Ousmane Manko bokk conférence de président man ak Ousmane Sonko Abdourahmane Sow kër Malick